maa ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu doon ko la ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dinay tukki mbokk yi sunu waxtaanu tey mi ngi jëm ci juróom-ñeenteelu ndénkaan ci dénkaan yi yàlla andi ci mujjug saaru lanaam yàlla dinu ci dénk matal kóllëre ak lu ñu dige ñu def ko mu wax ne na ngeen di matal kóllëre gi leen yàlla digal ngeen koy matal matal kóllëre nag ak di def li nit ki dige yàlla da ko boole ci jëf yi mbaax boole ko ci jëf yi ngëm itam jëf yi wane ak mbaax di wane ak ngëm yàlla digle ko ci béréb yi wóote ci alquranul karim yàlla itam tagg ñi ko jikkowoo seeral leen na it ñu ragal yàlla lañ seeral leen seeral leen na it ñu am xel lañ mooy ñu jariñoo seen xel lañ yàlla nga wax ci alquran ne bu ngeen diggante na ngeen matal la ngeen diggante waaye bu leen diggante ba noppi xotti wala fecc li ngeen diggee woon bañ koo def mu wax na it ak mbaax du rek du rek ngeen di jëme seen kanam penk wala sow waaye ak mbaax mooy ngeen gëm yàlla gëm bis bu mujj ba gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonente yi di wax ba àgg ci ne ñii matal kóllëre bu fekkee digée nañ dara mu dem ba mujj mu ne ñooñee ñooy ñi dëgg ñi dëggu ñoo dëggu ñooñu itam ñoo ñu ragal yàlla kon seere na foofu ne jikko jooju ku mën a ci moom ak yeneen yem ko booleel ku dëggu la ku ragal yàlla la mu wax na it ñii jariñu ci fàttalik yàlla ñi ciy jariñu mooy ñiy jëfandikoo seeni xel te ñooñu ñooy ñiy matal kóllëre te duñu fecci kóllëre matal kóllëre nag day lu ñuy tudde responsabilité boo xam ne bu ëllëgee danañ ko laaj nit ki yàlla moo wax ne day leen matal kóllëre ndax kóllëre kat dañ koy laaj ëllëg mel ne dénkaan na lu yàlla dénk nit bu ëllëgee mu laaj ko nan la ci defoon ñàkk kóllëre nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko boole ci màndargay naafeq ku dul sàmm kóllëre du def la muy diggee kooku yàlla da ko li yonent bi sallallahu wa sallam da ko boole ci e, màndargay naafeq mu wax ne yenn tamit nii yooyu bu ñu dajee ci nit nit kooka naafeq bu ma sëkk la buñ dajewut tam lu ca nekk ca moom rek na xam ne lu toll noona mu ngi ci moom ci naafeq li fekk tàqoo tàq tàqlewu tàqoo li fekk bàyyiwut loola xam ne ak naafeq mi ngi ci moom mu ne koo xam ne buñ ko wóoloo mu wor bu waxtaanee wax lu amut diggee bañ a def lem digge bu xuloo wax lu ëpp maamu def lu ëpp kon boole na ci koo xam ne bu diggee def bañ a def la mu diggee mu boole ko ci naafeq yi noonu ñaan yàlla mu boole nu ci ñi matal kóllëre te sàmm nu aar nu ci wor ak ñàkk matal kóllëre noonu koy ñaan mu defal ñu àddina ak musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm may na fan a gudd ak wér defal na jàppalante suñu jur yëpp nangul na sunu jëf yu baax yëpp